loolu fur la gis ngeen fur wi nu ñu koy paasante di ko yóbbu ci beneen oto rës la pro borom automobile a ngi noonu rës keesu picc yi bari na de cey làmb gis naa fi benn keesu picc xam naa ne am na beneen keesu picc buy ñëwaat picc yi de boo leen muuree mbaa doo muur picc yi beneen kees a ngi noonu keesu meew yi yee si ta nat naan naan meew nag ñaari keesu picc mbokk yi génne nañ fi ñaari keesu picc ñu sol blouson yaa ngi yéeg keesu picc